ak mboolem leen topp ci njub ga ba keroog yàlla di wal buftu bi euh, ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu fas yéene ñëw rek ànd ak yéen ci lenn ci ay duruus yoo xam ne dañ koy def jëmale ko ci dajekaay bu mag bi ñu dajee te moom mooy dawratul imaam Malik as-Salafiyya fi Sénégal mu nekk ay duruus yoo xam ne dañ koy préparé di ko wàcc ci kër googu ngir mbokk jullit yi man cee jariñu ñi sant ñi nga xam ne ñoo koy taxawee yàlla defal leen tawféex ak defal leen xabul ñu fas yéene am ay duruus yoo xam ne dañ koy taxawee incha allah rawatina ci weeru tedd wi ñuy dëgmal mooy weeru koor ñu tàmbalee ca incha allah mu jëm ci ay mbir yu am solo yoo xam ne fas yéene nañ koo wàcce rawatina ci weeru koor yu ñu dëgmal. xam la chaque shakka ni mbokkum jullit mi dana aajo lu bari ci ay ahkam yo xamni daf ko wara xam surtout lu jitu koor ngir bu koor ñewé man ko démarrer ñu fas yéene koo tàmbale duru ci inshallah ci chambaan bi muy continuer yéen ba so ba inshallah ma ramadan inshallah ma ba'd ramadan bi iznillah ñun nak inshallah ñu fas yéene ànd ak yéen ci benn ci durus yi nga xam ni dañ koy taxawee te moom mooy durusul fiqhiya ñu tànn leen insha allah kitaabu siyaam min kitaab bulugul maram bu ibnul xajar alxaafiz ibnul xajar al asqalaani rahimahullahu taala kon insha allah ni ñu fas yéenee jàngate bunt bi ñu nekk te mooy kitaabu siyaam ci bulugul maram نانا نيو ان شاء الله تي بن مقدمه بو غات ريك تي الصيام موي لان تي اللغه العربيه اك الشريعه الاسلاميه اك جيما تود لين تي نيار نيغا خامني وور امناكو اك كور كان نانكو فراتال اك لو تي اديو ان شاء الله بونتا جوغي ني نيو جين تي حديثي جيما جيل بن حديث بو نيك جيم كو تشامبر تي اي وجوه مختلفه خول جيما خول لو جيتو تي والو سند بحديث بي نخ حديث بو ولا ديت ak gàttal incha allah bu amee ay yenn kalimaat yoo xam ni yu jar a leeral la ci loo loo wala fiya ñu leeral ko ba mu gën a leer su ko defee lañ ciy mujje mooy jiima tudd lenn ci atte yi nga xam ni xaalis boobu ñu ñu càmbar am na ko ci ay ahkaam ash-shar'iyya incha allah noonu lañu bëgg a doxalee ak yéen ba keneen ñu jeexal kitaabu siyaam bi di ñaan suñu borom bi mu defal ñu tawféex defal ñu xabuwul def mu nekk naafian li kulli man yastamiu ilayh kon ci loolu ci la ñëw insha allah ak yéenu mubasaratan rek ci kitaabu siyaam ji ma xamle lan mooy siyaam ci al arabiya ak shariat al islamiya dañuy wax ni alsiyaamu fi lluga al imsaak qaala abu ubayda yuqaalu li kulli mumsikin an cheyin min taamin aw أو aw an araadi nnaasi wa aybihim fa huwa ومن هذا قوله تعالى فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن فلن أكلم اليوم إنسيا صوما بمعنى صمتا كما فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بني وخي كور اللغة العربية دنتي جبل الإمساك الإمساك نك بني الإمساك عن موي جاب وليف دارا تعالوا فين كوف من كوت نك موي باي باي مير bo jàppee wolif da nan bàyyi na moo tax naan am sa kaan moo tax boroom xam-xamu loo mag boobu di wax ni abu ubayda nee na képp xam ni dafa jàpp wolif ci lek wala wax wala sax ci deru doomu aadama yi maanaam doo wax ci doomu aadama yi ak seeni ayib doo ca wax mën na ni kat huwa saimun an hazil umur manam kooku dafa woor wolif wax ci doo wax ci doo ay ci wax dafa woor walif ci lekk woor walif ci wax woor walif ci mboolem li nga xam dafa jëm ci dara doomu aadama yi ak seeni ayib te loolu nekk lu am solo lu koy dëggal ci luxal arabiya mooy alxuraan bi nga xam ni téere la boo xam ni ko wàcce ci lang arab mu nekk cosaan ci arab borom bi di wax ni fa quuli inni nazartu lirrahmani sawman ca xista maryam alayhi salaatu wasalaam suuratu maryam ba mu jugee ca àll war a ñëw ci kër gi indi doom bi nga xam ni xamuñu kuy baayam xamuñu kuy waajuram bu jigéen te tuuma wartaa jublu suñu borom dana ko boo àggee yow na nga woor walif wax maanaam nanga nga tëj sa gémmañ bul wax dara ko laaj dara rek neel man neel man dama woor inni saa'im kon loolu nekk loo xam day firi baatu arab boobu boroom bi wax sawman nazaratul rahmaani man dama niseer a woor tëj sama gémmañ dama wax kon lu woor mooy al imsaaku anil kalaami lay firi foofu mooy samtan ci noppi jëfandikoo ci woor ci loxol arabiya bu fekkee nag koor ci saraan nan la ko sariya déggee parce que léeg-léeg koor ci loi day gën a yaatu maanaam baat bi léegi day gën a yaatu ci loxol arabiya bu ñëwee ci shariatu islamiya bu dee ci shariatu islamiya borom xam dañuy wax ni al imsaku bi niyatin an al muftarat min saxsin maxsuusin fi wax fi waxtin maxsuus nee na bu nee koor ci loxol arabiya waxoon nañ ko sànq mooy al imsaku an mooy nga jàpp walif moo tax mooy nga bàyyi anil muftaraati ci mboolem lépp loo xam dafay yàqu koor xam naa nañ ci gën a ñëw ci ay atte yi nga xam ni mbir yi nga xam dafay yàqu koor nee nag bu nee koor ci islaam mooy nit ki bàyyi lépp loo xam dafay yàqu koor waaye nag bi niyatin day ànd ak yéene parce que soo ko bàyyi woon rek te am te yéene du nekk ibaada parce que innamal amalu bi niyaat wa innama li kulli imrin maa nawaa jëf yëpp mi ngi amee valeur ci yéene yi kon la nga yéene ci jëf ja moy tax jëf ji ma a nekk jëf ju xam ni jëf ju am valeur la kon bàyyi ngay bàyyi mboolem luy yàqu koor pour mu nekk koor ci chariatul islam yi dafay ànd ak yéene bu sell yéene bu set loolu nag ci kan lay jóge min sax sin maxsuus day jóge ci jëmm joo xam ni dañ ko jagleel maanaam nekkul ñëpp war a woor ab yéefar woor war na ko waaye su ko su waree du wér ni ki noonu xale bi doo ko judd doomu aadama la waaye war waru ko ni ki noonu koo xam dafa ñàkk xelam ni ki noonu ku feebar kon dafa am jëmm joo xam ne moom lañu ñu visé ni ko yow mooy yow moom su koor ñëwee woor dalay war kooku mooy moo tax mu ne as-shakhsul maxsuus kooku nag mooy kan al mukallaf al muslim ko xam ni jullit la pare nekk ko xam ni ku majeur la ci góor bu jigéen nga dolli ni na nekk ko xam dafa set ci deretu mbërëg te moom mooy règle nekk ku set ci deretu mooy nifaas kon kooku mooy ki nga xam ni moom la ñu ci koor bu koor ñëwee mu war a woor moo tax mu ni min saxsin maxsuus ba tey nag day nekk fi waxtu maxsuus nekk ci heure boo xam ne ko jagleel nekkul heure bu la neex nga bëgg a woor rek mën a woor soo bëggoon a woor guddi woor ko wér kon waxtu wi nga xam ne moom lañ jagleel woor satan islamiya mooy bi nga xam ne moo tàmbalee min tulu al fajr thani ila ghurubi sams day tàmbalee li jëm ci nga xam ne moom mooy fenkuk fajaru ñaareel ga mu ñu al fajaru sadiq fajar gu dëggu ga fajar daa am ñaari fajar fajar gu njëkk gi fekk na waxtu yu duggagul waaye fajar ga nga xam ne nag ca la waxtu yu dugg waxtu suba wi li fajar gi fajar googu mooy nga xam ne moo tax mu ñuy wax ca la koor tàmbalee fa ngay tàmbalee bàyyi lekk ak naan ak lépp lu yàqu koor ilaa xurubi samsi jëm ba jant bay fenk jant bay fenk timis jot heure boobu mooy heure bi nga xam moom lañ jagleel woor kon ku bëgg a woor faaw nga tànn heure boobu noonu kon loolu moom mooy li nga xam moo jëm ci wàllu firim koor ci luxal arabiya ak koor ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu chariatul islamiya bu ñu bëggee xam koor nag kañ lañ ko farataal ak nan lañ ko farataale koor bi yonante bi sallallahu alayhi nekkee màkka kon ñu ngi ko xamee def na fa tollu fukki at ak ñett koor nekkul lu war a farataal ci moom lépp lam fa doon def rek moom mooy woote jëma ci tawxidullahi subhanahu wa taala ak julli daa fay wàcc ci diggante boo xam diggante bu gàtt la la fa julli bëriwut kon loolu lépp dafay firndeel rek am solo go xamni ni ci tawhid am nako ko solo ñu war ko baye xel bu baaxa baax xamni momay ne base bi su baaxee lepp la ca top mën naa baax waye su bonee moom daanaka jërut nit ki doomu sonal parce que yalla mu wër faaw nit ki am tawhid gu wér a wér wéral yàlla gu sel parce que ñak tawhid day yaq ay jëf kon li dégg fofu rek moy koor nekkul woon lu farata ci bi nga xamni ne sallallahu alayhi wasallam mi ngi makka waye dem na Madina ba am fa at sax ak lu top moo tax ci sana yàlla borom xam-xam wax ne ci lañu farataal koor suñu borom bi doo ko farataal ci moom koor foor nag bu muy ñëw nekkul loo xam dafa jekk rek borom bi daa koy farataal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais dafa jaar ay étape moo tax leen yàlla yi ngir metti gu metti ak euh, doomu aadama ñàkk tàmm ku ñàkk tàmm moo tax borom bi ci xekk maam su koy farataal ci ñoom day jaar ci ay étape da koy njëkk oyofal mu gën a dëgër ba keroog muy ëgg si étape bi nga xam ni euh, day nekk étape bu. fa lay stable nekk loo xam ni lay continuer ba keroog yawmal qiyaam moo tax koor bi ko do borom bi doog faratal ci shariat islamiya dafa nekkoon loo xam ne ixtiyaar yi la maanaam ku bëgg a woor woor ku mënta woor nga leele wala wax nañ sax li la nekkoon fayata ci woor mooy sawmu al asura ba ca mujj ga nag ci la borom bi wàcce aaya di wane ne nag koor nag lekk nekk na léegi loo xam ne lu faratal la ci yéen يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لو نيك سورة البقرة بروم بن وخني يني خا خامل نين گم يالا خامل نك بس نك تاي فاتال نان تي كور كون نين كو فراتالي تي خا خامل نون جيتو وون مرادي موجي نيك لو خامل نك اماتول تان كيب كو خاني نكو دا نيك لو وار تي موم بو ويرو كو نيوي بروم بني فمن شهد منكم الشهر فليصمه képp koo xam ni weer weeru koor fenk na nit ñi gis ko te fekk yow yaa ngi teew ci àdduna ànd ak wér man bokk ci ñi nga xam ne ñoo mën a woor yow woor daf la day la day la ah, da di war maanaam ah, da ngay nekk koo xam ni woor daf laa war kon loolu moo jëm ci étape bi nga xam ne ci la koor jaar ba sunu borom def ko mu nekk lu farata mooy te mooy shahru ramadan bi nga xam ni bu ñëwee képp koo xam ni fekk na la fi da nga war a woor bu fekkee mën nga ko saati dañu na ci yow. kon ginaaw loolu dañuy jeexale ci muqaddima bi ci tënk gi lu jëm ci yenn ci ngëneelu koor ngëneelu koor nag bëri na lool buñ ko doon tudd duñ fi jóg waaye rek dañuy tudd lenn li nga xam ñoo ci gën a fës rek bokk na ci ngëneelu koor bu ci gën a am solo mooy dafa jëlal doomu aadama bi la ñu tuddee ak taqwa te xam ngeen ne ak taqwa mooy li nga xam ne soo ko doomu aadama bi amee rek ba ca àggee niveau boobu day nekk nit ko xam ne ku texee la ci àdduna ak ku texee ci alaaxira koor nag daf koy joxe moo tax ci aaya bu ñu tudd sànq suratul baqara bu ñu koy jeexal borom bi dani laallakum tattaquun fatal nañ ci yeen koor kon ñu ko fatal ci ñun jitu woon ngeen war ka wor seen ko woré kat dana leen jural ak ragal yalla kon koor dafay jural doomu adam ba ragal yalla ci feñ ak ragal yalla ci lu laqku parce que xam ngeen nak koor wax na ni moy bok na ci jaamu yalla yi nga xam ni ngeestal mënu ci nekk kep ko def rek xamal ni en général def na ko li wa ci parce que amul kenn ko xam ni amna katan ci muraqaba ci jéem maîtriser doomu adam ngi mën ka waral ba tax mu woor na mu war a wooree te fekk amul benn gàllankoor amul benn eh, loo xam ne mën na ko ca def moom aji woor ji kon daal koor nekk na loo xam ne dafay jural doomu aadama bu nekk ko ragal yàlla bokk na ci njëriñ ya pay dafay jural doomu aadama bu nekk koo xam ni dafay mën a moytandiku lu bëri ci ay eh, ay subahaat ak ay soxwaat maanaam ay bànneex yoo xam ni borom bi daf koo araamal ci ñoom koor bu ñëwee de tax nga gën kaa bàyyi waaye sax du yem mais lenn ci ay bànn yoo xam ne dafa dafa dagganoon ci yoon yoon sax sa borom te la koy tere ngir nga mën cee jànge mën cee moytandikoo ba tax bu fekkee koor nga na nga war a wooree ba koor ga jeex dana la permettre nga tàmm lu bëri ci bàyyi ay moy yàlla bàyyi lu bëri ci ay bànneex yoo xam ne dafa dagganoon sax ci yow nga mën kaa moytandiku ngir mën a gën a jege sa borom kon loolu tamit lu am solo la ci njëriñu koor bokk na ci ba tey koor daf jàngal muñ maanaam as sabru lépp loo xam ni euh, ay njumte la wala sax loo xam dafa daganoon ci yow kon ni nga ko waxoon sànq nga mën koo bàyyi ngir woor ngir sa borom ba tey bokk na ci njëriñu koor dafay jural doomu aadama bi ñu tuddee asixa albadaniya kon ni mu saxat ci leen ci xadis yi yonent bu saa saan wax ni suumu tasixu woor leen suñu ko defee dana leen jural ak wér yaram ak yeneen yoo xam yépp ci ay njëriñu koor la kon ni yonent bu saa saan ni képp ku woor benn bis ci bis yi te ba nga koy woor yàlla rek tax sa borom dana la sorale safara lu tolloog distance juróom ñaar fukki at kon loolu bokk na ci njëriñu lool ba tey koor daal mi ngi noonu ba tey bokk na ci njëriñu koor dafay ràmb doomu aadama bu doog bu dugal ko àjjana jëf yi nga xam ni dañ koy fayee yomal xiyaam doomu aadama yi koor du ca bokk borom bi nee na koor jëf jëf yi doomu adama yi def yépp moom maanaam dañ leen koy fay ci ab xisaab waaye koor moom fa huwa fa huwa lillahi subhanahu wa taala asawmu li la kon ni mu ko waxee maanaam moom moo koy fayal boppam ta ko suñu borom kum fayal boppam rek nga gis ni lam lay fay dana ma sëkk la kulli hal dal lolou len la ci ay ngeenel yo xamni kor làmb nako mu nek lu am solo lo xamni doomu adam bi julit war nako koo bàyyi xel kon lolou moy mu bi biñu bëggo def jëmele ko ci kor euh ak ak xamlem ci chariatul islam yi ak loxal arabiyya ak kañ lañu farataal kor ak la ci aju ak la ca mujj mooy tudd lenn ci ngëneel li nga xam ni koor am na ko kon incha allah dañuy ñëw ak ci deuxième partie bi ci leçon bi ji ma tàmbali nag ci xadis yi nga xam moo njëkk ci bunt bi ji ko firi ci méthode boobu ñu leen waxoon ñaan borom bi dafa ñu taw feex